Someone called me yesterday. He said that he needs an employee. Démb am na ku ma woo nee daa bëgg ku ko liggéeyal. How many people called you in this week? ñaata nit ñoo lay woo ci semaine bi. ok si kaw someone called me mooy am na ku ma woowoon. yesterday mooy démb. someone called me yesterday he said that he needs an employee. moom nee dafa soxla ku ko liggéeyal. how many people called you in this week mooy ñaata nit ñoo woo woowoon ci semaine bi ñu xool nag wax ji fu mu jëm many people and many companies but I can't work everywhere nit ñu bari ay company yu bari waaye mënuma liggéey fépp what do you want to do now with all what do you want to do now with all lan nga bëgg a def léegi ak ñépp lan nga bëgg a def ak ñëpp lan nga mën a def ak ñëpp ñi woo ñëpp donc many people call to me and many company call me but I can't work everywhere mooy mënuma liggéey fépp du ne fépp laa mën a dem liggéey I can't go everywhere mënuma dem fépp I thought you might need a job I thought you might need a job yaakaaroon naa ne yow danga soxla liggéey I thought you know I don't like jobs I prefer to stay at home yow xam nga ne man bëgguma liggéey man moom dama tànn rek des kër ga toog kër ga daal man moom laa bëgg you know I don't like jobs mooy I don't want to get a job I prefer mooy dama suwa dama bëgg to stay at home mooy des ci kër gi I thought mooy yaakaaroon naa you might need that mooy yaakaaroon naa di nga soxla loolu. I was so hesitant to tell you that because I know you. I was so hesitant to tell you that because I know you. dama doon insister sax pour di la ko wax ndax xam naa la. I tried claiming for the first time few months ago. I tried claiming for the first time few months ago. man maa ngi doon jéem a def liggéeyu fomp sax raxas sax ci ay weer ci ginnaaw maa ngi ko doon jéem a def léegi ci kaw ba léegi I was so hesitant mooy dama doon insister bu baax sax how was it was it easy for you nu mu demee woon nag ndax yomboon na ci yow mooy cleaning boobu how was it mooy nu mu demee woon was it easy for you ndax yomboon na ci yow Was it easy? Nekkoon na lu yomb but I hate getting up early but I hate getting up early yomboon na waaye dama bañ teel a jóg teel daal moo ma neexul. Was it easy? Mm-hmm. mooy it was easy but I was but I hate getting up early. That's what happened to me in my first days here. loolu moo xewoon ci man wala moo ma daloon ci samay fan yu njëkk fii. That's why I neglected it. The boss decided to call someone else. That's why I neglected it. The boss decided tax sax ma xaw koo négliger ba njaate gi bi. finalement mu décidé woo keneen that's what happened to me in my first time wala in my first days loolu moom moo daloon ci samay fan yu njëkk fii what do you do for living now what do you do for living now léegi lan ngay def ni lan ngay def for living mooy ci sa dëkkuwaay rek I said I stay at home and do nothing unless sleeping dama ne la man damay des kër ga rek du def dara lu dul nelaw unless my except I say that I stay at home and nothing buñ ne do something mooy def dara do not do mooy du ma def do nothing ba léegi mooy négatif bi mooy du ma def I do nothing mook I don't do anything benn lañu you will never know until you tried you will never know until you try doo ma sa xam doo ko ma sa mën lu ne dang koo jéem what do you mean by saying that what do you lan nga namu ci loolu lan nga namu ci loolu what do you mean by saying that ci kaw phrase bu ama am solo la you will never know until you try mooy doo musa xam lu dul danga koo jéem what do you mean by saying that lan nga jublu ci loolu what do you mean about that lan nga jublu ci loolu you will never know doo mos xam you will never know which type of job is easy and cool doo mos xam ban liggéey moo gën yomb wala moo gën a cool until I start it that's what you mean mooy until I started that's what you mean ah dul ne dama ko tàmbali ndax loolu nga si jublu until I started loolu question la that's what you mean ba léegi loolu question la ndax loolu nga si jublu maanaam duma xam benn liggéey neex bi wala naxaraay bi lu dul ne dama ko tàmbali gis nga you will never know yes nothing is easy in this life waaw waaw dara yombul ci dund bi Yes, waaw Nothing is easy. mooy dara yombul in this life. Now I understand léegi comprendre na which kind of job do you suggest me to do? Baat bu am solo aussi. Which kind of job do you suggest me to do? bu ñu waxee suggest mooy nuñ koy waxee mu nga may xelal moom nga may xelal moom nga may digal. léegi comprendre na ban genre liggéey nga may digal ma def ko